président ça explique euh, couper signal loolu. non non réew mu réew mu dem dellu ginnaaw la aussi couper signal lu mën a nekk la. Mhm. par contre ki couper signal bi jàpp na ne waru ko couper. Mhm. parce que couper signal mi ngi ci mi ngi ci code de la presse bi. ok le sous-préfet bi nga xam ne foofu la Walfadjri nekk am ah, mën naa couper Walfadjri préfet Dakar mën naa couper Walfadjri gouverneur mën na ko couper mais mais nag ndey mbali ji dëgg-dëgg c'est le CNRA. Mhm. je crois que le ministre aurait dû saisir le CNRA mu jël procédure normale yi waxuma nag ñu couper signal Walfadjri mais Walfadjri dañoo war a retirer licence bi. définitivement ah définitivement ils plus du journalisme. loolu loolu loolu c'est grave. et li ñuy def ko gën a garaaw xam nga Walfadjri. mais xam nga man Walfadjri. presque bu contrôle gouvernement bi du son problème. Mm-hmm. mais même opposition bi dañ cee tànn kenn rek ànd moom. ku ànd te kooku ñu ne doo opposant yaay opposition ça c'est du n'importe quoi ne sont plus dans le journalisme ils sont dans l'arbinisme le pa Walfadjri est devenu une section de communication de propagande de Pastef et c'est inacceptable Sidy Lamine faatu na moo tax li ma am mais Sidy Lamine yàgg naa dénoncer lu mel nii euh, ce que je veux dire mooy euh, Sidy Lamine il a toujours été là pour le peuple euh, n'empêche il a toujours eu des bâtons dans les dans dans les roues voilà avec Macky Sall comme avec dafa far ci opposition bi kenn la ci faram muy Pastef ak Ousmane Sonko.